tukkib nemmeeku bu njiitum réew bu senegal ba Sénégal Bassirou Diomaye Faye ci jàkkutee fukk Alassane Ouattara di njiitum réew bu Côte d'Ivoire dafa jëm ci gën a rataxal diggante ñaari réew yi le wante itam xaritoo ak lëkkaloo gu mucc ayib gannaaw waxtaan yi nga xamante ne bi amal nañu ko ñoom ñaari njiitum réew yi le jot nañoo waxtaan lu yaatoo yaatu ci lu soxal ñaari réew yi wante itam réew yi fare ci diwaanu Afrique nemeeku nañ ci jàmmasante gu mucc ayib ñoom yi président jot nañoo rafetlu jàmm ak xaritoo gi dox seen ñaari réew yi wante itam ne daañu gën a dooleel seen lëkkaloo ci wàllum politique sécurité ak itam économie muy ndogal goo xamante ne bi jël nañu ko lépp rek ngir mën a aj bu baax a baax ay pexe yi nga xamante ne bi jël nañu ko wante itam di fexe amal ay consultation yu mucc ayib ngir gën a rataxal diggante Dakar ak Abidjan ci li ñu gën a waxtaanee bokk na ci wàllu napp gi mbay mi caada gi tourisme njënd meeg njaay mi wàllu wattu ak kaaraange gi wér-gu-yaram njàng mi ba ci tàggat yaram ñoom ñaari njiitum réew yi wax ne daañu gën a dooleel seenub lëkkaloo bu ko defee yële secteur daal di gën a ñoŋ xam njariñu jàmm ci biir réew mi ak ci bitim réew lim mën a jur ci wàllu ko développement moo tax nag ñoom ñile ne daañu boole seen doole ngir xeex wàllu terrorisme ak yeneen i ñaaw teef yu ni mel te itam di faral di waxtaan lu yaatoo yaatu ci wàllu wi